ñu ñëw ci euh, li nga xam ne moo jëm ci euh, waa aar lu ñu bokk ñi nga xam ne nag bëgg nañu fu mu nekk nii euh, daal dugal seen loxo ci xeex bi jëm ci lii di yokkute gi ñu nemmeeku wala ñu fas yéene ko daal def ci lii di wàllum courant gi Guy Marius ànd ak Ndeye Fatou Blondin Diop nee nañu daal mbir yi ko seetaan benn yoon fas nañu yéene daal di jàppale askan wi dox ci ay jéego bu nguur gi dellu gannaaw naka noonu ki nga xam te ne tamit moom mooy Babacar Diop moom it yëkkati na ci ay xibaar yëkk ay wax kon daal sàkku ci askan askan ñu daal di nag wàcc si mbedd mi ndax euh, lu ëpp tuuru. ñu des ci ba tey wax ci ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, waa kon askan wi ak yokkute googu nga xam ne nii fas nañ ko yéene daal di def euh, ci wàllum kon courant gi askan wa nag mbir ya ba ñu ko déggee ne la watuñu ba yandoor mel ni sax borom kër yu bëri mbir yi daneen na jaaxal ba fu mu nekk ni daal fu nekk ñu ko fay gestu sàkk nañu nag ci njiit yi ñu di leen bàyyi xel bu baax a baax ñu teew leen ci reportage bu Mélanie Aminata Sambou yokkute courant gu nguurum Sénégal fas yéene amal benn fan ci weeru décembre ak mbégteel la jur ci askanu Sénégal. yokkute bi de moom bu ñëwee dana metti dana metti trop de parce que gis nga atelier yaa ngi ni toog kenn liggéeyul léegi nag façon bu mel noonu aussi bu ñu yokkee courant bi day xaw a metti ci góor góorgóorlukat bi de. yokkute bi moom neexul kenn parce que déjà rek euh, courant yi faj facture dafa cher. donc buñ ci nar a tegaat yeneen yokkute donc day day doy waar daal. que déjà dëkk bi dafa métti. xanaa métti rek man ne Sénégal gi moom ni ma ko gisee man dee sax moo ma gënal dund. mais dëkk bu métti lan ne dëkk tar lan ne. ndax nemmeeku nañ ay yokkute ci seeni facture naa ko ndax chaque jour bu ma indee sama facture fii ci kër gi dama naa ko ki ma nekkal facture bii ma gis koy yokkaat. moom loolu moom chaque jour xam nga ñoom seeni facture dafa nekkul benn place léeg-léeg day ñëw yomb léeg-léeg day ñëw cher xamu nag loolu lu tax. yokk te njëgu courant bi tax na bile askan bi sàkku yërmande ci gouvernement bi. yokk bi moom daal du xalaat daal du xalaat daal affaire yi daal doxul fii mu ne daal bàyyi ko ni meloon ñu góor góor lu jéem koo respecté mooy li gën. war nañu daal bu ñuy yokk wala ñuy ut yeneen rentrée ay revenu yooyu ñu xool faneen daal. situation bi ñu toll ñu war a añ war a ree wala ndéeg nga naan damay yokk courant yokk ndox loolu c'est pas normal ñun ñoo ngi bëgg a dee. sénégalais yi dinañ yokk seen loxo ci fay mi ngir mën a amee courant yokkute 6 à 10 pour cent gi ñu nar amal ci courant mi mu ngi am gannaaw bu ñu yokkee lii di njëgu carburant bi. mu mel ni ki nga xam te ni euh, moom mooy kon directeur bu euh, Sénélec nag moom fu ne nii euh, si loolu la war a tontu moom Pape Mademba bi tey dajee ak taskatu xabaar yi jamono ji may wax ak yéen jëm ci kon wàllu wow nañ ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo ak suñu reporter ba ñu fa teewal. Euh, junjoon nañ leen ko ci njorteelu xabaar yi fële ca Kédougou euh, waa section bu syndicat euh, fii di ko samtoo eh, ñoom waa CNTS FC nag nee ñu ñi di liggéeykat ya eh, nañuy eh, doxaleek ñoom dara rafetu ci ndax nag ñu ngi liggéey te amuñu contrat ba noppi seen wàllum wérgu gu yaram aaruñu leen ci lenn ñi di seen ay njaatigee mel ni ku leen faalewul suñu naataangoo seli bu xamada bu mu nga fa woon Unaotegemea thibati jafe-jafe ouvrier lié société d'exploration minière bu basé fale ca Xosanto te mu bokk ci département Saraya ñu koy duppee Soret Mine bu dundu coordinateur régional bu syndicat CNTS FC ak ñu mu àndal mënatuñu muñ ci lañu sol seen dàll amul bor du mu sol solul ay gants solul ay casque mu dugg dans la brousse de des heures des heures de six heures à dix pour une pause d'une heure de temps nga ne kooku du lekk du naan du sol dàll bu feebaree du faju mais ñun du doon Sénégal lañ nekk fan lañ nekk. la CNTFC kanam mu nekk seen aar ak seen yelleef dinañ leen ko jox ba mu set kii di Mor Sissoko mi di représentant départemental di xam ne faw Soroti Mine respecter le code du travail. le contrat qu'on a donc c'est un contrat verbal même si Mais ce contrat, devant la loi, on ne peut pas vous montrer de preuves matérielles. Nous souhaiterions, dans les plus brefs délais, que la société euh, puisse donner des solutions idoines. bëgg di yokk ne daal ouvrier dañu mos a lank bañ liggéey te demoon sa toog waxtaan ak yi autorité administrative ak locale ngir ñu mën a saafaral ci li fay soloti miin dañu boycotté boobu ndaje te loolu dafa firnde ne nag ñoom seen yoon nekku ci te faalu ñu leen Kédougou Soli Bourama Dabo pour la radio télévision wàllum courant bi moom Cheikh jot nag daal dina sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di njiit yi ñu xoolaat bu baax a baax ni nga xam ne ni euh, noonu la ñu koon euh, doxalee moom mooy secretaire général bu sent FC ñu teewlu ay kàddoom ak Moussa Sène initier réforme yi nga xam ne moom la ñu war a def ci convention collective nationale interprofessionnelle pendant que ñuy négocier loolu négociation yi bloqué ñuy wax waxu yokku loolu la syndicat yi mënul nangu syndicat yi dañu wax ne pouvoir d'achat liggéeykat yi bu àdduna dee dox na dox loolu mooy tax ñuy laaj augmentation de salaires te augmentation yooyu dinañ ci xara suñu tànk tubéy ba ñu conclure ay accord pour que képp kuy liggéey ci secteur privé nga am augmentation dinañ ci xara suñu tànk tubéy pour que convention bi nga xam ne convention obsolète la daanaka dépassé nañ ko ñu réactualiser ko tour de ndaminisation yooyu yëpp ñu réactualiser ko ba mu nekk convention bu jàpp ne loolu bu ñu ko deful bëgg a yokk yaakaar naa dina indi jafe-jafe ci organisation syndicale yi te loolu duñ ko mën a nangu. ñu dem ca fi nga xam ne moo di euh, Gandiol ñenn ca askan wi nekk ca kon boobu lépp dëkk bu Kër Barka ak responsable ya nekk ca usine bu transformation euh, nag neexootuwuñu euh, ndax nag euh, askan wi nee nañu daal dañuy faral euh, di am ay jànkonte yoo xam ne ni usine bi moom moo leen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ca usine ba nag daal nañu xam ne liggéey ba ñuy liggéey mënu leen a wàññi dara ñu teewlu ci ki nga xam ne moo di Fatou Diop Faye mi yëkkati seen i ay yii lee kàddu dénk ko suñu naataango Gabriel Barbier Euh, bi ñu gisee ñaxtu yooyu nag dañu gis ne am na si wax yoo xamante ni génn na te euh, pour bañ mu jaxa indi ay jaxasoo si bopp doomu aadama yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal ñu ne nañ ci indi ay leeral parce que am na si yoo xamante ni yu si bëri yoo xamante ni xëy na dafa safaanoo ak li nga xamante ni moom moo am euh, moo tax te ñu indi si ay leeral. bëgg a leeral que ni usine bii di saint si production mi ngi fi nekk ci ay anam yu leer. anam yoo xamante ni dañ fi nekk ak euh, accompagnement wu service technique yi ñi nga xamante ni euh, ñoom ñooñu ñu accompagner ba ñu am suñu papier yëpp yi nga xamante ni moom la wax a liggéeyee jóge ci euh, papier environnemental bi dem ci agrément de production agrément d'exportation yooyu yëpp am nañ ko ci na mu gën a leere leneen li mooy usine Saint-Louis si production jàppale bu muy jàppale mool yi nga xamante ni ñoo nekk si région de Saint-Louis parce que bi ñu commencé ba léegi. at bu jot euh, usine bi dina dugal lu mat 500 millions de francs CFA boo xamante ni daf koy jëmale si njëndum jën bi nga xamante ni euh, mool yi dañ ko daan tour si tefes bi peut-être léegi nag loolu participer na bu baax si euh, set bi nga xamante ni moo war a am si région de Saint-Louis leneen beneen point positif bi ñu ngi koy wax si création emploi parce que ñàkkum liggéey nekk na loo xamante ni lu lu jafe la am am liggéey nekk na loo xamante ni fii lu jafe la ci Sénégal mm. te usine bi mi nga emploi emploi yoo xamante ni xëy na direct la yu jëm si ñun yoo xam dañ fiy nekk tout le temps wala yu indirect yoo xamante ni ñu ngi koy def ak yeneen prestataires yoo xamante ni ñu si mel ni que mareyeurs yi wala jigéen ñi nekk foofu ci tefes bi wala wala transporteurs yi wala manœuvres yi et tout ça léegi nag euh, bi ñu euh, seetlu defee taxaw seetlu yooyu yëpp ñu ne nañu indi ay leeral si askan bi en plus tamit ñuy invité population bi nga xamante ni ñoo nekk Saint-Louis ak plus particulièrement Kër Barka ñu gën a jegeyantoo ak ñoom gën a yaatal waxtaan bi ñuy waxtaan pour que su ko defee réeroo dootul am ñu dem ca yaraax askan wi nag euh, lii di euh, train express régional bi liggéey ba nga xam ne nii ñu ngi koy def euh, jànkonteel ñu si jànkonteel ay jafe-jafe askan woowu nag gis ne daal dañoo xëy suba rek daal di baare yoon wa amuñu fu ñu jaar defaluñ leen sax ay passerelle yoo xamante ni mën nañu fa dem digg tax nag ba ci dibéer gi xëy nañu suba daal di dakkal lépp loo xam ne dem laak dikk la ñi nga xam ne ñoo di seeni ay njiit ñoom nee nañu daal teer waxu leen dara laata ñuy def bi lépp kon dogal kii di Babacar Junior Fall lañ ciy teewlu. pont bi ñu taxawal fii ci Kapa xaaj na commune Hann bel ñaar loolu waral dem ak dikk bi jafe lool moo tax askanu yaraax génn baare tali bi di route de Rufisque. boo gisee ñu def yu mel nii yëfu maa tey dañu considéré yaraax comme yu dëkk la quoi dañu jàppee yaraax moom ay yaraax moom mooy loolu dafa enclavé lu am loo xamante lu war a développé. liggéey yi aju ci TER indi na ay jafe-jafe yu bari ci askan wi ñenn ñi. ngir dem ci seen bërëbu liggéeyukaay dinañ ci jànkonteel ay jafe-jafe yu bari. problème pom bi wiiri bi dafa doy waar imagine ku de depuis SDE ñëw ba fi nga bëgg a wiira dem ba kappa kii géej dafa dafa métti te surtout mag yoo xamante ne mënuñu yëg mënuñu defee sport dafa doy waar te affaire bi dafa dafa kawe dafa kawe te normalement dañu war a am parcelle comme yeneen pom yi ñu amee parcelle. ba ñuy taxawal pont bi du benn xibaar bu ñu jox askan wi miir bii nga xamante ni moom la ay junniy nit doon jaar par bis bañ koy tëj sax ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorité yaraax yëguñu ci dara. ñaari fanu yàllaa ngi nii ngir jóge Hann Village dem ci Hann Plage nga jaar ci pont bi nga xamante ni daanaka pareegul askan wi di dox lu jege un kilomètre jege oto yi lool fii nag lu ne mën na fee xew. ñu dem ci regroupement bu transporteur yu Sénégal yi nga xam ne dajaloo nañu fële ca Kaolack ngir daal di doon benn say xàcceendoo daal di dóorandoo bëgg nañu nag lu jëm ci wàllum kon licence transport bi nga xam ne teg nañu ko ci diggante Sénégal ak Gambie nguur gi daal di ko teg teggi leen loo xam ne ni sàkku nañu ko seen dajeek taskatu xabaar yi nee nañu daal Gambien nee nañ loolu mooy bëgg rey seen gare routière yu nekk ci dëkk yu sësee Gambie. secteur transport nag ñu li ci ëpp privé la ay privé la ñu te jàpp naa ni état lépp lu privé man yoonam bu mu sa nekk. wax ni dafay joxe ay licence Gambie jox ay licence Sénégal loolu nag ñun su amee ñun famille transport bi nga xam ne ay privé la ñu doon ci dund ñun ñu dund su fekkoon ne bii nag ña nga xam ne ñooy moom licence sax ay privé la ñu mais cinquante licence Gambie cent licence Sénégal mu ngi mel ni Gambie dafa am mille licence ci kaw Sénégal parce que quinze kilomètres rek ngay daw Gambie jeexal ko ñaata kilomètre nga daw bi ba tey ñoom chauffeur yi nee nañ nguur gi fi mu waroon sànni ay gëtëm moom mooy jéem a ut saafara ci concurrence déloyale bi nga xamante ni ñu ngi koy amal moo gënoon ñuy wëri leneen. y a le transport déloyal. jii yaakaar naa ni nguuru Sénégal ci li ñu waroon wax mooy ci concurrence déloyale bi am fii ci Sénégal ci transport bi ay particulier tuddee seen bopp ay taxi allo Dakar ay war gaynde di jël client yi di doxalee nu leen neexee ñu leen ciy seetaan nañ saafara loolu moo gën tey jii ñu ñëw di wax ay waxi licence. c'est mieux de le faire que de nous imposer des pour la Gambie. leneen li nga xamante ni ñoom transporteurs yi waxtaane nañ ko ci ndaje ba moom mooy bisu Sénégal dem dikk yi nga xamante ni dañoo jékki-jékki rek gis ko ci biir région yu nekk ci biir Sénégal nee nañ kenn yëgalul leen rax ci dolli boolewuñ leen ci lenn. bi si gën a garaaw nag mooy Sénégal dem dikk boobu ngay dégg. ñun bi ñu yónni lu ñu waxoon oto yi bu ñu koy indi transporteurs yi Sénégal lañ koy jox waaye bi oto yi ñëwee. ñu dégg ñu ni dañu koy jox Dakar dem dikk loolu nag la nit ñi tudde wax waxeet loolu nag la transport Sénégal gépp ñu ànduñu si. ndogal gi nguur gi jël ngir ay licence am ci transport bi diggante Sénégal ak Gambie loole nag dina indil tolof tolof ay junni junni nit yi nga xamante ni gannaaw chauffeurs yi ak transporteurs yi ci gare routière yi la ñuy yëg seen bopp ngir mën a am lu ñu yóbbu njaboot gi ci kër ga. bu ñu demee ba état ni du dellu gannaaw sa loola ñu jàpp ne ak njabootam ñoru ko. waaye ku sax njaboot ñorul nag seen bopp ñor leen ba ñoom ñu def la nga xam ne moom lañ bëgg a def. Kaolack Alhassane Ba Abdoulaye Dia Walfadjri jërëjëfal Xasan Ba ñu wax nag ci lii di ñetteelu pàcc bi ñu jagleel gox yeeg goxaat yi bu commune bu Ndiarème Limamoulaye bëgg nañu jëmmal li nga xam ne nag moom moo di liggéeyam ñoom daal nañ fa jot a nag ay délégué de bi yoon nañu bàyyi nag askan wi ñu faral seen bopp seen délégué de quartier yooyu ca quartier amoo sis nag am na ku ñu fa jot a daal di fal ba noppi ci kanamu njiit yi nga xam ne nii ñoom ñoo leen kon bokk jiite foofee ca gox ba sàkku nañu nag ci ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo fa toogal nguur gi eh, ñu eh, liggéey ak ñoom ci anam bu gën a rafet eh, kii di Mamadou Bedi Sey maire bu ñaareem Limamoulaye la ñu teew laay kàddoom ak Théodore Semedo ñu waxtaanee am nañ juróomi candidat am nañ nag un très bon comité d'organisation comme ni nga ko gisee nii ñoo xam ne ay kilifa lañu ay commandant de brigade ay enseignants ay ya beaucoup de choses ici ay kilifa ñoo nekk fii ñoom ñoo organise lii yëpp ñoom góor ñi ak jigéen ñi ak mag ñi ndaw ñi doxandoo ko ba tey ñu ñëw fi di voté boo xoolee taabal ji xool lépp xam ne dara manqué wu fa parce que li fa waroon am yëpp am na fi am nañ seen isoloir am nañ seen i seen bulletin yaa ngi nii vraiment organisation bi même élection législative yi ñu ay présidentielle jàpp naa ne am nañ fichier électoral et tout kon jàpp naa ne euh, ñii moom dëgg-dëgg exemple lañ jox ñëpp li ñu def nii day joxaat gëdd délégué de quartier parce que délégué dafa daan dafa daan doon rek bàyyi sa bàyyi délégué sa maam délégué nga nekk délégué lii wane na ni mosu fi am en tout cas kon wane na ni jamono ngi dox jamono buy dox nit ñi ngi dox ànd ak jamono mel na ne lii ñu def fii Sénégal gépp war nañ ci xel xam ne léegi comme àdduna dafa dox nañ ñëpp jéem a dox joxaat gëdd délégué de quartier parce que bari na coow yoo xam ne mu ngay dem police ay tribunal alors que délégué de quartier war na ko mën régler ci biir quartier bi moom ak imam yi muy nekk rek ak ak ak ak staffam waa cité amoo 6 ci exemple bi ñu jox parce que depuis 72 ñu toxu si fii ñun ñu ngi doog gis lii yàlla xa seede na ne fekke nañ ba tey ay nomination délégué de quartier am na yoo xam ne ñun ñoo ko defal suñu bopp mais lii ñu def vote nii de manière transparente mais vraiment musuma ko gis Eh, kii di njiital délégué de quartier yooyu nekk kon ca commune bu ñaareem eh, Limamoulaye eh, ñoom moom daal dina yëkkati yile kàddu xamal ko ñi nga xam ne ñoom ñooy waa bokk moomeel yi sàkku na si ñoom nag ñu gën a kon jëmmal li nga xam ne ni moom mooy sañ-sañ bi jox askan wi ñu tàmmal seen bopp délégué de quartier ndax loolu day tax rek nekkin wa gën a mën a neex kii di Mouhamed Boun Sow lay wuyoo ñu teewlu ko ba tey ak Théodore Semedo li ñuy def dafa mel na moo lu jëkk la daal ci géejuwaay en tout cas ci peut-être même si Sénégal parce que man en tout cas personnellement mosuma gis ñuy fal délégué de quartier par le des élections dañ ko daan see si biir néeg rek nan daan tànn kenn ni ko yow yaay délégué de quartier kooku su demee ba mënatu ko mu jox ko doomam wala jegeñaaleem kon nag moo tax ma ni lii daal njott naa ni lii lu jëkk la ci Sénégal dañu gis ni président boo koy élire boo ko buñ koy fal par élection la député yu noonu donc c' est très normal que délégué de quartier bi nga xam ne moom moo leen fi toogal que ñu élire que euh, de cette façon là. nga bi ñuy def lii dañu def li ñuy wax appel à candidature wax cité bi yëpp kan moo bëgg nekk candidat pour nekk délégué on a eu juróomi délégué juróomi juróomi candidat ñoom ñoo am juróomi candidat moom moo correspondre ak juróomi bulletin yee ngeen gis fee nit ñi ñëw voté kenn ku nekk seet kala doy nga voteel ka ñu jàpp ni bu fekkee da bëgg jiite nit ñi day fekk nit ñi bëgg nga jiite leen. pour nga ko wax ñu xam ne nit ñi ñoo bëgg nga jiitalee nag moo tax ñu jaar ni si ay élection te lii war na tax ñëpp inspiré suñu yeneen délégué délégation de quartier yëpp jaarale nii moo gën ñu ye tëju si néeg rek ni kii la bu fa nekkul doomam wala jarbaatam nekk te loolu mën na am du neex mbooloo mi yëpp mbooloo mu fa dëkkee yëpp waaye lii kenn mënul wax neexul mbooloo mi parce que mbooloo mi moo ñoo ñëw voté si ñu seet ki ëpp waa ñu kii ka ñu ñu fal ka kon lii day tax euh, euh, ki nu fal vraiment mu fas jom dana tax aussi mbooloo mi xam ni kii ñu fal mboolo mi moo ko fal waaye du si biir néeg nañ ko xumtoo wala nañ ko fale taskatu xabaar bi di Cheikh Adramé jot nag daal dina jot uh, bind ab uh, téere waaye it uh, daal di defar benn film boo xam ne da ko la soxna sii di Khady Fall Tall nekk njiital AFAO moom nag lam ca jublu mooy daal def loo xam ne nii ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi dinañ ci mën a jaaraat doon na soxna soo xam te ni ku mu bokkal maas rek bàyyi nga ko xel tax nag ba def na lu ni mel mbiri lancement bi nag ci altine gii lañu ko amal ci théâtre national bu dernier Sorano ci kanamu ay njiit ak public boo xam te ni ñëw nañu fekk euh, lii di daje bi xoxaan dong mu nga fa woon. ci altine ji tombeek ñaar fukki fan ak juróom ci weerub novembre atum 2019 la taskatu xabaar gi di Cheikh Adrame Diop doon itam réalisateur doon fësal ca théâtre national Daniel Sorano film ak livre bii mu duppe le parcours atypique de la fille de lambay ci livre jile nag mu ci wane jaar-jaaru kii di Khady Fall njiital AFAO di kuréel bi ëmb jigéen yi nekk ci Afrique sowu jant li tax ma ñëw def documentaire bi mooy dañ gis ne depuis quelque temps li nga xamante ne moom mooy mouvement féminin mouvement donc euh, associatif d'une manière générale dafa dem ba nga xamante ne nit ñi fonkootuñu ko lu tax parce que dafa am jëmukaay boo xamante ne li ëpp ci ñoom xaalis moo leen yitteel wala leneen moo leen mais engagement liy tax nit ki mu mën a jàppale boppam jàppale également ñoo xamante ne xëy na moom moo leen tànn am engagement boo xamante ne volontarisme lay nekk. mais il faut quand même que ñu def documentaire travail ci ay personnalités yoo xamante ne am nañ jaar-jaar googu ñu fexe won loolu génération bi nga xamante ne moom moo fi nekk rawatina jigéen ñi pour ñu mën a inspiré wu ci ñooñu au moins que ñu euh, jël ñooñu def leen exemple su ko defee ñoom su demee ba toll xam ne lii taxawaay la warugar la su ko defee ñoom mu mën a développer réew mi. njiital AFAO Khady Fall Tall di wane mbegteem ci initiative jile tey ñaax ndaw yi ñu mën a sukkandiku ci livre bile ngir mën a yokk seeni pas-pas. tey moom dañ fi daje woon pour du sax du sax pour affaire honoré Khady Fall Tall mais pour xëy na jéem a seet ci moom lan moo mën a jariñ askan ñi nga xam ne tey toll nañ di ndaw toll ci buntu àddina xëy na. buñ leen waxul ak ñoom mën nañ dem ba man fi ma eggoon ci coono ak ci métit ak ci ci difficulté ñu découragé ma woon leen ne nit du découragé. jàngee ba am sa situation itam nga wëlbatiku di seet ci askan wi ñu nga tànne nga di leen jàppale. cérémonie gi leen nag ñu amal ko ci biir fukki fan ak juróom-benn yi ñu jagleel xeex métit yu dal ci kaw jigéen yi tax Khady Fall àdduni métit yi ni mel dañ leen war a dakkal waaye faw rekk jigéen yi gën a dëgëral seen taxawaay ngir mën a am seen koomu bopp. dafa metti dafa metti du fii rekk nag waaye nag Sénégal fii ne dafa li ñu ci wax rek mooy kontaan nañu ci li xew noonu waaye wan nañu ne man en tant que Khady Fall Tall militant AFAO ba jógee ba léegi dama ne xale daal jigéen ñi nañ fexe ñu amal seen bopp dara. ku man boppam kenn du ko maltraité waaye boo mënul sa bopp léeg-léeg nga ne sa jëkkër jox ma dépense rek mu toj nopp bi. bi lépp cérémonie ñu ngi koy amel ci teewaayu Mohamed Ibn Chabas di président UNOWAS doonoon it njiital CEDEAO ak Aminata Touré mi présidente conseil économique social et environnemental waaye itam ci teewaayu association ak ay délégation yu bëri yu jóge fepp ci réew mi. jërëjëf xooxandoo ngu ñu jaar noonu dem ba biti ñu ànd ci ak Moussa Sène xibaar biti réew ñu door ko ca Mali ak Élysée mi nga xamante ni dafa xëy rek fësal te dëggale li nga xamante ni lu toll ci fukk ak ñetti soldat français yi nga xamante ni ñoo ñàkk ci seen bakkan foofee ca Mali ab hélicoptère moo daal di def accident ak beneen hélicoptère bi nga xamante ni ci jexaat yi si la bokk moo ne nag la ñu def rek ba fukk ak ñett si soldat français yooyu ñàkk seen bakkan ci ab guerre boo xamante ni mu ngi doxoon rek ngir xeexi terrorisme bi ñu nemmeeku foofu ca Sahel ñu gis ni rek militaire français yooyu ñu ngi bokkoon ci groupe Barkhane di xeex terrorisme yi nga xam ne moom lañ nemmeeku foofu ca Mali ci ab jàmmaarloo bi ñu doon amal ak jihadiste yi noonu la seen hélicoptère daal di mbëkkante rek ak hélicoptère jihadiste yooyee ba lu toll si juróom-benn officier ak juróom-benn sous-officier ak benn caporal daal di si ñàkk seen bakkan foofu ca Mali ba tax rek Emmanuel Macron di leen njukkal. dem ca Kenya ab taw yu métti métti ñoo fa am ba tax rek lu toll ci juróom fukk ak ñaar ci doomu aadama ñooñu si ñàkk seen bakkan loolee si buñ sukkandiku ci bilan bi nga xamante ni ñi fësal nañ ko te gouverneur bu farate comité frontalier diggante Ouganda te trois cent cinquante kilomètres dox seen diggante ak dëkk ba daal di koy confirmer di John Layan Ngappo moom nag mi ngi wax ni rek taw yu métti yooyee faat na ci lu toll juróom fukk ak ñaar ci doomu aadama foofee ca Kenya ñu gis ni rek bi taw boobu amee métti na woon lool ngir rek ñu sauvé ay bakkan foofee ca Kenya ndax gis nañ ni inondation yi jéggi woon na dayo waande itam pont yi nga xamante ni ñoo doxoon diggante foofee nga xamante ni moo di fa taw ba amee dañoo daal di yàqu ba tax rek pour jéggi foofu problème bu jéggi dayoo la nekkoon ba tax rek ay autorités yi jël nañ ay dogal yóbbu ay hélicoptère armée ak hélicoptère police rek ngir mën a sauvé yi des ci ay bakkan jeexale ko ak Albanie nag ñu gis ni rek ab tremblement de terre moo fa am tremblement de terre boobe nag mi ngi faat lu toll ci fukk ak ci juróom benn doomu aadama waa dañu nemmeeku tam téeméer ak juróom fukk doomu aadama ñoo ci am ay gaañu gaañu buñ sëkkandikoo ci ab benn sismologue nag di rapport Arménie di explique rek li jéyee ji ni mel te métti lool gëj naa am ca dëkk ba ba tax rek autorité gouvernementale yi yóbbu lu toll si ñetti téeméeri militaire maanaam takkader ngir rek dem ñi nga xamante ni ñoo ñooñu la tremblement de terre boobee daan ba am ñu mu rëy ci ñoom ba tam mu toll si téeméer ak juróom fukk daal di si am ay gaañu gaañu. jërëjëf euh, Moussa Sène yemoo ko fu ñu yëkkatee jotaay bi jaajëfal ñëpp ñu ci jàpp ba mu yemb jaajafal nañ leen yéen ci ànd bu rafet bi ak euh, lii di Walf TV leeruk euh, jamono baatu ñi amul baat ñu bàyyi ak Ndeye Fatou Ndiaye mu kon ñëw ak yéen ci li nga xam ni moom mooy la mi-journée ñaareelu pàcc bi lan moo ci gën a fës Ndeye Fatou Ndiaye. Fatoumata Seye ni nga ko waxee ñu ñëw ci ñaareelu xaaju xibaar yi rawatina ci mi-journée. bokk na ci li ñu ci war a waxtaanee gëstu bés bi ñu jagleel ko ñàkkum kaaraange ci biir ndakaaru ak li ko wër loolee nag lan moo ko sookee jàngat bi Fatou Bintou Diouf moo ñu koy defal ci kanam tuuti lay doon euh, xew-xew bi nag muy yokkute ci njëgu li nga xamante ni mooy dund bi euh, rawatina ceeb diwlin suukar ba ci ndugg mi foo ci laal rek yokkute am na ci lan la panier de la ménager di peser ci jamono yi Mame Khady Diéry Fall dinañu ko tekkil loolee ci biir mi-journée lay doon wote bés bi ñu jagleel ko beneen yokkute muy njëgu courant bi ndax benn fan ci weeru décembre lañ bëgg a yokk njëgu courant bi euh, Babacar Diop njiitu FDS nag moom nee na na askan wàcc ci mbedd mi weñ loxo lekk ba ni ñu na ma def ñu daal di ci deltu ginnaaw gannaaw li ci yëglekaay yi ak yéenekaay yi suñu gan ci ñaareelu xaaju xibaar yi di commissaire Bassama Camara di commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite moom la ñuy waxtaanee lu jëm ci ñàkkum karange fii ci Ndakaaru Fatoumata Seye loolu lépp kon léegi léegi la koy kon daal di yaatal ak yéen moom day Fatou di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen ba ci kon kanam tuuti jàmm ak jàmm.